décision quelque part est-ce que conforté wu la yow que tu as eu raison d'avoir participé ce ce à ce à ce dialogue là. ça rien à li nga wax fële ak fii du benn mbirum troisième mandat beeg décision wu président ak dem dialogue bi du benn parce que bi ñuy dem dialogue ñun dafa amoon lu ñu gëm gis nga dialogue man je suis un acteur politique. dans ce pays fekkee lu bari nag xam lu bari bokk ci lu bari le dialogue politique au Sénégal a permis depuis 1988 xam nga lu ma jox la 88 mooy année yi réew mi di am yëngu-yëngu. yi gën a tàng. voilà yaa ngi fàttali ko caractère 88 état d'urgence. wadd ñoom et cetera voilà donc 88 la ñu njëkk defee dialogue conseil économique et social. ñu bari xamuñu ko mais booba la waxtaan wi doore depuis 88 à chaque fois que réew mi am problème nit nañu toog nañu wax en fait xam nga li tax dialogue bi metti gars yi dañ defe ni ku dem dialogue rek da ngay dem transhumé. parce que 2015 moo tax. oui mais booba dañu xamul man en tout cas xam naa sama bopp moi je suis dans l'opposition depuis 2000 2000 ba léegi maa ngi opposition. mille ba léegi mandat bu ma am je l'ai comme opposant j'ai été élu député j'ai été élu maire j'ai été réélu maire j'ai été réélu député tous comme opposant musuma toxu musuma daaj donc je n'ai pas de leçon à recevoir wala di jàng ci kenn parce que li ma gëm sama parcours ak li ma xam sama bopp man am na lu ma jombal sama bopp maintenant kenn mënul wan baatu gannaaw dama la wax ni Macky le troisième mandat et le dialogue amul dara lu ko lii. parce que bi ñuy dem may ma pare. bi ñuy dem dialogue. d'abord dama la ni gëm dañu gëm ni war nañ dem dialogue mooy sam problème ak Yewwi dañuy dem dialogue parce que le F24 quand la question du dialogue a été posée on a di ku nekk defal lu neex le F24 lui li ko tax jóg du dialogue c'est le troisième mandat il l'a réglé bi FNR amee bi nguy dem dialogue dañ ni ku bëgg dem ku bëggul dem dialogue bi les partis politiques ont été invités le Yewwi comme d'habitude s'est réuni et s'est prononcé c'est vrai ku nekk prononcé wu na xam nga chaque parti wax na damay dem moom dama dem donc il pas de problème c'est pas lié